بلي من الله يرون في كل أيلم لرب التجاهي في هلوري وخيبتي وبالمصطفى أشكر نهم سلمي علي الله ثم سلامه بعد الله وصحبه كل مسلمين إلهي على خير البرايا محمد أدم سرمد أشكى صلاة وسلم ما لا والله ثابت وردني سريا لا توبى وهدني وألمي ما لا والله ثابت وردني تري لا تباع وهدني وهلمي إلهي علي دهر كوني خدمه وكوني خديم الهي علم وفايمي إلهي من الواب أقيد بهرا وكسبا وإلهاما فليكشف ألهمي توجهت الفتاه أقفته وأرجو فيولا منه والفيل ينهم رميت عن الغار صار اليدا قريبا فريدا هندم أي مفهم سلي لي نسكر لبي بالقلب والجسم والفم ndaysan suñu yàlla yu faal yàlla na yàlla yu koy leeroon ci barke xasida googu mu doon jàng ak xasida yëpp muy ala inani usni ñu ngi koy ñaan yàlla yokk koy leeroon ci barke moom tabax xasaayit yi xasaayit yi moom di siyaar nag bu baax a baax sëñ muru sëñ muru Mbàkke Jaañ nekk foofu ci Tuuba nit ku baax ñu ko ñaan wir di ko siyaar moog waa diwaan ba yëpp nag bàyyiwuñu kenn góor jigéen mag ak ndaw siyaar nañ leen koy ya, ñaanal tawféex di ñaanal sëñ Moustapha Diagne yàlla na yàlla koy leeral ci barke sëñ Tuubaa xasaayid yi doon rakam waaye di siyaar sëñ Khadim Diagne ndeysaan moom itam seen rak moom itam waaye sëñ Jibril Kanji taal bi sëñ Moustapha sa baaxum siyaar naa la yaag sa waa kër yëpp soxna yi bàyyiwuñ kenn ak njaboot gi yëpp ya, nag maa ngi leen di siyaar di ñaanal tawféex ci barke sëñ Moustapha sa baaxum aji faj ngir mu jub soxna Wali Kanji maa ngi siyaar nekk fii ci Ndakaaru ndeysaan ci guy guy sawar guy jag sawo siyaar ya, naa ko ak borom kan sëñ Ibrahima Diop di ñaanal di leen ñaanal tawféex waaye sëñ Mor Diagne ca jannatu Touba ma ngi ko seer bu baax a Mor yalla yalla defal la tawfiq gudda sa fan ku émission bi ñor lool lool lool lool lool sëñ Saaru Diagne siyaar na ya ko sa njaboot gi yëpp da bayu ñu kenn wa Touba jannatu no ngi siyaar ñëpp di ya la ñaanal tawfiq ci barke wajur ak barke maam ya mu di sëñ Mor Diagne yàjjën kon xasaayit yaa ngoog wakkun muhisan lana min sirri si asadin masari famin wa sarril yalla yàlla aw sëñ Touba nee na yàlla nu ci ayo iñan min sarri sii xasanin nit ku iñaan ndax ki ñaan mooy bàkkaar bi nga xam ni moo jëkkam ci asama ci asamaan ci bàkkaar muy muy ñàkk ci jur aada iblis aadama ki ñaan moo ko lal taay moo tax téere yi ñee ñu bi jëkk ci asamaan ki ñaan ko waral muy ñàkk ci jur iblis waaye nag bàkkaar bi jëkk ci kaw as suuf itam ki ñaan ko waral mooy reyu xaabil gam reyoon xaabil ñu bokk seen ñaari waajur aadama ak awa kon xaabil rey naa xaabil ci soxna soo xamante ni rek boo ko ne takk ma rey la ci la ko reyee iñaane ko ko moo tax kon ku iñaan te jëfandikoo iñaanam jar naa mu jar naa muslu kon sëñ Tuubaa kon muy san lanaa min sëri si xasanin mu sal nekk musal nu ci ayu ku iñaan ndax bu ko jëfandikoo rek musiba am ma sari famin ak ayu borom làmmiñ woo xam ne lu mu tudd rek mu yàqu wasarir xay ni ak ayu bët borom bët boo lu mu xool mu yàqu sëñ Tuubaa mus na ci yàlla ci si ndiit wa sarri ak ayu am njibar kuy jibar wa sarri sixrin wa sarri xalqi insihimoo ma jinnihim wasawaati summi yàlla na nga musal ci ayu njibar ayu mbindeef yépp moo xam ci nit ñi moo ak ca jinne ya ak borom tooke kon moo tax loolu ma wax kon solution bi fi ñu toll nii moo di xasaay di sëñ Tuubaa ca moo ko mas sa doon naka jekk nag waaye nu ko war a xamee xamuñ ko noonu waaye moo ne mën a sàmm tey sàmm nu barsàq samuna allah ban dem aljanna khasayit moko man kon nañ ko gëna fonkat gën ko jappat lepp dal ci rek ci na nek neku ci len kon ma ngi del war resi sëñ dam bismillah ku Aliou Fall النبي والحار بغاني حرادي ولجانب الحسنى وعن منسوب الجبا ولنا الحلوان عن الكوكب وارنا ما يقل بالاسم وتابا وكفر ثاني في يوم وعالي يقل بالاسم ما دابا مكاني وللوالي وجدوا ما مجباني في رب الفاني في رب الجعبي عبد الله عن الزاكي بكون له قبل خدمة من أبا آه. Yeah! بلد يوصد عرب سنتي والجمال هذه مرب الورم الى جن ابليس وبيسن والدام ديوس وهما الى جن هدى عمي ونجم الكبر والكبرى والتجديد ما تنزلا Thank you.

فرح بدنيا وجعلنا بجاه المصطفى ظهر عادنا Yeah,

se Yeah, yeah, yeah. ndeysaan kooku mooy maam mooy maami gaa yi di bàyyi gaa yi kooku moom mu jëkk njàng aw ci yoonu murit mooy njiit li ndeysaan ñu ñaan yàlla yokkay leen ak way jiitu yëpp naa daam nag gaa yi bu fekkente ni sëñ dàngura ak sëñ ah, ah, Amdi Fall bu dee jàpp na ne tey bu mënee jàll rek jàll su ma ta jàll tam ñu waajal ko ëllëg sëñ Mbàkke Jaxate itam ndeysaan koo gëj nañ gaa yaa ngi koy wax ni gëj nañ koo kii lool ndeysaan jaay bu jàpp nee nag bu kii tam rek na nga programme baax na waaye ñëwal sant baax a baax sañ kooku mooy sañ sañ sëñ sëñ Cheikh Fall Euh, kon euh, ñu ngi siyaar sëñ Mor Ndiaye bu baax sëñ Mor Ndiaye nag daanaka mooy magi jànkat yi fii toll nii mm, jànkat yi mooy seen kilifa moo doon jëw niñu daayira Tassim daayira Tassim boobu nga xam ni kii jàll léegi sëñ Cheikh Fall moo jëkka doon jëw niñ jë euh, ñu bari doon nañ ko ci ba sëñ Mastafa am doon na ko ba tey sëñ Mor moo ko doon ànd ko jànkat yi ñu ngi ñaan yàlla dëggal taxaw ci barke sëñ sëñ Daw sëñ Ndiaye sëñ Mor siyaar nañu baax a baax Euh, siyaar sëñ Daawda Fall moom tam day sànn di ko baax du ko siyaar moo jabatam gépp waaye soo soxna Xadi Njaay bàyyi faal maa ngi koy siyaar ca day sànn telimaam jaare ca yoonu guy ga siyaar naa ko baax a baax waaye sëñ Modou Diop sëñ Ahmadou Diop téye maa ngi koy siyaar baax siyaar waa këram yëpp Tuubaa ak ñu nekk Ndakaaru di ñaanal yàlla guddal fanam sëriñ Faye mooy taalibi sëñ Saliou ñu ko wax sëñ Cekkaan nekk ci caar ñoo koy siyaar baax ak jabootam gi waaye sëñ Faye doon euh, xalifa Baay Sekk Gaye fay siyaar naa la di siyaar baax ci daje sëñ eh, Baye Seck Gaye Ndiaye jàmbaar ja ak sabakat sëñ Jaana Mbay Touba sëñ aadama Saw ñëpp Touba siyaar naa leen sëñ daam bismillah jàllal ci risi ba ba xam ñooñu day ndesaan ñooñu naan mag ñi nag xam naa waa kër sëñ Massamba daal loola doon xam naa doon waa kër sëñ Massamba mën naa doon waa kër bu doon kër Ñang na ngay faral di gisee muy génne noonu xam comme amu ci man na doon waa Cheikh Seex Mbacke Mbàkke loolu sax laa jàpp yaakaar naa ni kon ñu ñaan xam naa ndax ñu bari ci ñoom fi ñu toll te wax dëgg yàlla ay buur rek ñu nga ca Touba sax kon ñaa dem Barsax yàlla na seen leer yokk ci barke xasida gi ñu doon jàng ñi ci des itam yàlla sàmm leen di siyaar na soxna Caara ci sunu mag la nga xam ne nag te di ak si borom kon maam Mor maam Mor maam Mor Mas sëñ Masamba ak njaboot gañ am yëpp siyaar naan Caara yàlla na yàlla dugg de soo fan di siyaar nag mag ju baax Njaga Jaañ nekk fee ca yëmbal Eh, ak soxna jaar fall ak ngor njabar gi yëpp nag waaye maa ngi seigne sëñ sille jeul jëwriñ keur seigne Touba ca yembal muy kër seigne sabi Mbàkke di ko ñaan wër ak yag fi yag taxaw liggéey seigne Touba ak sëñ Masamba djop imam ba ma eh, ngi koy siyaar bu baax di ñaan yalla dëggal seen taxaway waye ma ngi ñu na ba ñetti mbar siyaar na soxna bu sa jaañ soxna bu sa jaañ soxna su baax ndeysaan nek fofu di jaay ma ngi koy siyaar baax di ñaan yalla barkel maam bu sa jaañ sa sa liggéey ak ñay jaay ñetti mbar ñepp nak maa leen di waaye soxna na koy wadd Baye Fall maa ngi koy siyaar sëñ Daouda Diop maa ngi koy siyaar euh, soxna Daado Daado Daado Tall maa ngi koy siyaar baax baax ñoom sëñ euh, sëriñ bi ak tayer yi nag ci tambaar yëpp daal siyaar naa leen dina ñaanal tawfeex euh, di sëñ Ablaye Guèye siyaar naa la ak waa daayir bi yëpp ak mboolem njaboot gi ñaan di di sëñ Modou Ablaye Fall sëñ Modou Ablaye yàgg am ay jàngkat sëñ Mouhamadou sàmm bi nga xam ne ñëpp xam na ko jàngal sëñ Ablaye Fall ndar la woon ba ci sëñ Modou Ablaye kon ndeysaan ñu ngi Ablaye ñu ngi lay seer bu baax ak waa daayira bi yëpp nag bàyyiwuñu kenn waaye dem nag ba Mbour euh, sëñ Modou Baaralou Modou Baaralou taal bi sëñ Cheikh Ndigal Fall maa ngi ko seer ak waa jabot gam bokk sëñ Tuubaa yëpp mam maam ya ak mboolem ñet mars ñet marché Mbour ñu fay jaay ñëpp ak dëkk ba dal ci baye xel émission bi siyaar naa leen dina ñaanal tofa ci barki xassay sëñ mudou Baaralou ci barki sëñ Cheikh Ndigal Fall aju fa ci mbir mu jub doole Cheikh Ibrahima Fall dam bismillah Thank you. المدن لنا ndeysaan sëñ daam jërëjëf kon sëñ Ablaye ñaa ngoog moom tam wax gëjoon naa romb nag waaye xam am na sax ñu ko doon laaj ndeysaan euh, daam jërëjëf kon sëñ Ablaye ñaa yàlla na yokk leer yi moog ñu jiitu ji ñëpp nag ci daraje xasida yooga mu doon jàng mu di gëstul xulóob euh, sëñ Sam Sam maa ngi lay siyaar baax baax di la ñaanal too fee sa waa kër bi siyaar nag bu baax sëñ Modou Guèye Tëli Diallo Thiaré maa ngi koy ñaanal ndeysaan euh, di ñaan soxna Kumba Njaay borom beñe bu neex bi di soxnaam ak waa kër gi yëpp waaye soxna Juma Njaay nag maa ngi ñaan yàlla barka sa liggéey ci barka sëñ Fallu foofu ci eh, di jaay ci jumaa ji ndeysaan maa ngi koy ñaanal barke sëñ Fallu yar barke barkeel liggéeyam waaye soxna Sadak Jum maa ngi lay siyaar bu baax a baax yaa sa waa kër gi yëpp soxna am Faati siyaar naa ko waaye waa mbaar ma nag mbaarum sëñ Fallu ma nekk buntu kër ba nag ñoom sëñ Yusufa Ñang ñoom sëñ Baye Njaay yi fa toog yëpp maa ngi lay ñaanal siyaar di ñaanal sëñ Aliou Sow mi nga xam ne moo doona borom kër ga yàlla na yàlla yokk leeram ca bar Eh, ndeysaan moom tam góor gu baax la kon ñu ngi siyaar mag ñee toog ñëpp di ko di di di ñaanal barke sëñ Fallou yàlla eh, faj ajib ci musul nu ci pexey noni di siyaar nak wañatu ñetti euh sona Anta gay sona Anta gay ndaysan wacc liggey ci dimanche ji altini ji wessu lañ koy bu daru Muxti doonoon soxna su bax ndaysan doon yaay daara la këram daara la wax deug lañ fa dem su ba ba guddi ci jamono ya nga xay bobu nan man nan ay ay kii góor xale yu góor lañu mën naa ni muy nit ku baax di ko siyaar di ña di ko siyaar njabootam gépp nag rawatina soxna Mati Njaay ñoom ak mboolem njaboot ga maam Balla Thierno ñoo ngi leen di jaale seen waajur woowu nga xam naa ne yéen a ñëpp ko bokk sax daanaka ñu ñaan yàlla def barsàq yàlla nañu dof laayam ci daraje maam Thierno Birame borom daaru muuti ndaamal daaru bàyyi ma sàmb lu ma doon borom ko ci jiitu jiwoon tam yàlla na yàlla yokk ay leeram ci barka borom tam kon ñu koy jaale waa Njattambaar yi yëpp yàlla dafa ko fa mu nekk yàlla dina fa laayam waaye sunu xaritam bokk ak moom daayira matalu foosé mooy daayira soldat yi sëñ Ibrahima Seen moo tam fan yii nii waajuram wàññi wàññi ko ca euh, euh, mi ngi dëkk Wakaam waaye soxna ma nga ca boor yi ndeysaan euh, dëkku séeréer fàtt naa tur ñu koy seer daal waajur moom itam Ibrahima Seen yàlla na yàlla defal ko sa waajur yàlla na yàlla defal ko ñu jéggal yàlla defal ko yërmande yàlla na dee doon na fa laayam ci barke Borom Tuubaa ak yi di ñaanal sëñ Saliou Ndiir doon jëwriñu daayira foofu sëñ nii nekk foofu ci Wakaam di Saliou sëñ Saliou Fall rawaat na sëñ Assane moo mu sëñ Modou Maam Fall moo doon sëriñam Saliou Ndiir yàlla na yàlla dafa ko ñu jéggal ak yërmal ci daraja Cheikh Ibrahima Fall di ko siyaare wat waa kër bi yëpp nag waa Wakaam Touba ko bi ko bàyyi ñu kenn di ñaanal ñëpp jam jamono ji daal xam naa yëf yi moom léegi bari na waaye daal lu ma a xew yàlla na yàlla mosoon na ci daraja yi pexem noonu ak noonu islam yëpp ndax saa bu lislaam ne di ndijoor noonu yi ni ni góos koo xam ne bu neen ndijoor nga ne càmmoñ nag kooku noonu islam dëgg nga kon ku noonu islam nag ñey say noonu mooy waa lislaam te ku noonu lislaam nag fi ñu ci ci àdduna bi nii boo dikkee Sénégal Sénégal a ci raw waaye boo dikkee Sénégal nag ci biir Sénégal ñu ngi gën a noonu ci islam mooy mooy mooy murit kon jàpp ci xasiida yi rek moo nu musal àdduna ak àllaaxira ci barke Sëñ Tuubaa sëñ daam bismillah Hallelujah न gaa yi koy awu nag ndeysaan yaa ngi nañu lool xam naa moom am na ci nag koo xam ne moom mujj gi moom moo gën a jël kii moom waaye sëñ Ibrahima Mbodj la ñu ngi siyaar bu baax nag sëñ Mbacke Guèye sëñ Mbacke Guèye moom bi may laajte kii moom jëkk woo bis ni ma Ibrahima Mbodj la tudd ma nga dëkk Louga dafa coupé rek mu daan may woo moom yi ci boppam daa dama daa dama daa damay euh, jox kii tiiram kon ñu ngi koy sëñ Mor Ndiaye tam ndeysaan géejee woo na ma moom bis ñun ñëpp ndeysaan ne ma Ibrahima Mbodj Ibrahima Mbodj la tudd kon sëñ Ibrahima Mbodj ñu ngi koy siyaar baax ma nga dëkk kon Louga ñu koy siyaar moom ñooñu ma àndal ñëpp di siyaar waa Louga yëpp nag ci barka Borom Tuubaa ak xasaayit yi mu mel ni ñu ngi siyaar baax sëñ Modou Sall sëñ Modou Sall ndeysaan moo ngi koy siyaar di ko ñaanal wér ci barkeb sëñ am surtout maam noo nekk foofu ci yoonu jàmm ak ni rek guy gi ak sa waakar yëpp soxna eh, Marema Ndiaye ñoom soxna Mariama Ndiaye ak soxna yëpp daal li gën a gàtt soxna diggéen Camara wala Touré maa ngi siyaar ñëpp daal euh, di leen ñaanal tawfeex di siyaar na bu baax Pape Dieng sunu xarit la ndeysaan nekk fii ci asanem Pape Dieng nag daa bokk ci euh, jàmbaar yi nga xam ne la bu ñu añ dañu añ baax a baax waaye siyaar naa la yàgg sa waa kër yëpp rek ñu kenn di siyaar Baye Guèye nag mu sëñ Saliou di siyaar Moustapha Dieye nga xam ne ñooy bokk yendu ajuma fii ci kër Baye Dieye mu sëñ Saliou di leen ñaanal ñoom ñëpp tawfeex ndeysaan waaye Pape Dieng nekk fële ca Fass Barigo maa ngi koy siyaar ak mbooleem waa daayira ba mu ànd muy daayira maam jaara daayira maam jaara ba nga xam ne rek fas barigo siyaar naa ñëpp rawat na seen jëwriñ ju jigéen muy soxna xadi bi maa ngi koy siyaar ak mbooleem daayira ba ñëpp daal ñu kenn góor a jigéen mag ak ndaw ca fas barigo kon Pape Dieng siyaar naa lu baax a baax kon ñaari fas Dieng ne Pape Dieng fas barigo moo nekkoon fii ci ndeysaan benn baraak loolu jàmbaar loolu nag ci taalibe gi kon ñoo ngi koy siyaar Pape Dieng beneen nag moo nekk fii ci asalam moom àjjuma nooy aññandoo waaye jàmbaar la ci añ loolu ndeysaan waaye maa ngi ko siyaar boobu wàkkaram yëpp nag ci barke borom a ak xasaayit yi di dellu rek si ba dellusiwaat door a wéyal siyaar sëñ daam kon bismillah sàmm ci wala xade karam na bani aadama ndaysan mu ngi siar njabotam gep ñu fi ne di ñaan yalla yoo koy leerante ak ci mom ku bari sopp wax deug yalla mom bam faato yag na waye dal dafa mel rek ndaysan day am ño xam ben waay neena mom da waran boko tege sax nga fatte rek nga fatte ko li gëna gatt mu jalla jalla jalla way sax kontam nak sax nak du tax du tax mu toy du tax mu doy kon ñu ngi siyaar soxna euh, Ndeye Soda nekk fële ca Touba nga xay Ndeye Soda Ndeye Soda Samb di fi nekk ñëpp rek ñu siyaar mu mel ni euh, sëñ Abdou Thiam ci Thiès maa ngi koy siyaar bu baax a baax waa Thiès yëpp waaye nag di ko ñaanal soxna Mati njaay soxna sama ko ñaanal bu baax di leen siyaar ak mboolem njaboot ko ci barka borom Touba ak xasaayit yi euh, waa soxna Abi Ndiaye laa bëggoon tudd sànq ca xel kii ko soxna Abi Ndiaye ci kër sëñ Modou Sall maa ngi koy siyaar baax a baax waa kër gi yëpp. soxna Fatou Diop Fatou Diop nak melni ñoo dekk way melni Fatou Diop talib Cheikh Abdou Khadim Mbacke la nekk fële ca usine ndox ñoo ngi leen siyaar bu baax di leen ñaanal tawfiq eh, waaye dem nag ndeysaan eh, kër Mori Xabaan soxna tian Kan ma ngi koy siyaar bu baax baax ak njabootam gep nak eh, di leen ñaanal yalla xewal ak muccu waye dem ngay kay seigne ablay Kan ma ngi koy siyaar bu baax sëñ Amdi Kan waa ka bay baykat yooyu yéen siyaar ak mboolem jabot ga euh ni ñaanal tam ndeykan yalla na yalla yokul leram barke borom Tuubaa xas dara ji Seex Sirif Asan Fall kaw Sara mi nga xam ni moo doonoon sëriñu borom këram di sëñ Papa Dieng nekk fële ca Ngent maa ngi ak waa Ngent yëpp nag ak tundu xabaan tundu tundu taseet yëpp ñu ngi siyaar ñëpp daal eh, seen sëñ bakkan ca Tongoor ndeysaan maa ngi koy siyaar ak waa Tongoor yëpp nag bàyyiwuñu kenn kon ndeykan yàlla yàlla yokk leen kon ñaan gi ñu doon defal seen waajur Ndeye Lo Kane di ko jiite ndeysaan nga xam doon ah, samedi ji nga xam ni moo samedi di nu weesu ni ndaysan ñaan yàlla nungu leer yi nungu ñaan yi ak ñi ci ñi ci yene ñepp ndax tay ni jamono ji bindo tax xamna tay wote wuñ ko euh, ñu ko diñ ko ya def ci rek ci samedi ji yando ko kon yalla yalla na yàlla nungu ñaan yëpp di siyaar nag waa jaxaay Pape Seck siyaar naa la wuli ke ma nga la siyaar ba ak sabakar yëpp di ñaan tam bay ma ndaak ndaak Seck yalla nako yalla defal bar sax nako layam waye soxna sa nga mën a ki liggéey ba itam nak euh, soxna sa Seck soxna fali Seck ma ko ñaan yalla mu yeggal liggéey ba ak jam ak salam di ko siyaar moom njaboot gépp nag di siyaar waa ndeysaan euh, jaxaay yëpp nag moo xam un ak deux bàyyiwuñu kenn waaye nag soxna Awa Diop soxna fa soxna soxna Dior Diop moo di jëwriñu daayira maam jaara nekk fii ci ndeysaan euh, centre course Pikine centre course Pikine xanaa foofu daal lañ man ma gën a miin mooy CFA tuuti CFA CFA ba yàlla CFA boobu euh, soxna Awa Diop maa ngi koy seer moom waa daayira maam jaara boobu yëpp Dior Diop moy mag di jur ñu daayira ba ak wa daayira ba aw jup day mag day rakam mo tan borom parfum yi mën a jox parfum loolu day sa mag ne ci yar baax te ñaan yalla barke ci liggey yow itam kon daayir maam jaara boobu nga xey soxna jor euh, jop moy seen jëwriñ len ci yar bax di ñaanal tawfiq barke borom tuba jamal ji ni bindu tax mom danaka daayir yi yalla ay bur dal gën a yalla ay bur rek mom da yàlla dem ba lepp romb ak jam ak salam bañ koy waxtaan ci rajo borom tuba rajo xasaayit xasaayiti kon sëñ daama dérabate ci ba xam kuy dikk rob sëñ Mouhamadou Samb Maxtaar Mbay ci raaya muy sahaadatu muridina ndeysaan texeeg murit yi war le sang rek xasiida yi mom moy biir mo ne mayna ne mo ni musal barke serigne touba Mbàkke fe bu japp ci baxa bax mo fi nek de solution da moy japp ci khassi mbindum serigne touba mi nga xamne ne de dee yalla mo fi de jaamu yàlla kaw nak li gëna gatt waccal hurufi fa kha kulli ya man li yaqulu amali defal sama arafi, moy sama mbindimi moy sama xasiida yi dañu féete kaw jëpp jëf ju baax jëpp jëf ju baax jaamu yàlla yëpp nag yëpp yëpp ñu ngi suufa xasaayit yi moo leen féete kaw julleeg woor aj màkka jaamu yàlla yëpp boroom a ko wax maanaam xasiid yi moo leen féete kaw waaw kon foo ku li xam ne la wax saluxa jëpp jëf ju baax ji nga xam ñi ko def aljana leen leen yàlla dikk xasiid yi moo ca féete kaw lépp mu féete kaw julli ñu nangu féete kaw koor gu ñu nangu féete kaw aj gu ñu nangu xasida yi sëñ Tuubaa yi kon maanaam xasaayit yi mooy solution moo jar jàpp saa boo xi ko gën a fedd li di gën a fedd la xasaay ji di ko gën a mën a jàng lu ci mënta jàng da ko warmaal ko faatu mu def ci yow loo xam kenn mënu ko dul sëñ Tuubaa xëy na ak Cheikh Ibrahima Fall loolu la yàlla dogal moom kon saxaadaati mu di yéen a ngoog sëñ Mataan Mbay doon ko jàng ñëw na di saar baax a baax day saan eh, Modou Gueye Modou Gueye mu ngi wax caat Eh, kamu gën tudd tongor ca turu xaw ci am eh, njàmme ma ngi koy siyaar baax ak waa tongoor yëpp waaye mu duggee maa ngi lay siyaar moom nag moom lañ wax ñoom soxna Dóor kan di wax kon siyaar naa la eh, ak sa waa kër sëñ Fallou ak mer Ndiaye ñëpp di siyaar tam Binta maa ngi ñaanal tawfeex ci barke xasiida yi darajee borom Touba ndeysaan yàlla daal kon ndaysan bis bi samedi yi ñew nak moo war a doon suñu bis ba ca Serif Lo samedi bii di ñëw la waaye nag gannaaw yàllaay buur dañ koy yendoo xëy suba rek jàng alxuraan nag xëy bu ci xasida xasee xajee ba jant bi so waaye koo xam doo fanaan moom salaw see boo teel faa départ rek ku mel ni yàlla mooy buur daal kon àjjum samedi ji di ñëw mooy suñu bis ba ci Serif Lo waaye ren yàlla mooy buur te moo ko doon daaw tam nag waaye kenn lay doon daal émission bii dañu nyi gin xel xam kamni saa bu ñu ko defee ci guddi gi bu ñu ko def bu jàllee ci guddi gi bu subaa ci na gi dañ koy tegaat na ko ñëpp bàyyi xel kon ñu ngi siyaar ñëpp di daal waat ko rési diglu sëñ daam ba xam kuy topp sëñ Matar Mbay كوني لديك Roy is ñaan sëñ Mori Seen ñaan di yàlla gën a guddal fanam defal ko wér ak ñoom àndal ñoom ñëpp nag moo jóge ci xasida googu nga xam moo di xasida raiya nga xam ni mooy gi ma waxoon sànq rek mooy saxaadatu muridin fii am day xëy mursalin maanaam moo ñuy texeel taalibe yi daal mu tagg ko rasulullah mi nga xam ne yàlla ni moo ci gën kon sëñ Mori jërëjëf ak ñi nga àndal ñëpp waaye sëñ Mbàkke tam itam jox na siyaar bu baax a baax sëñ Abdou Mbaw nekk foofu ci sam-sam waaye nag soxna ami soxna ami Géey itam maa ngi baax nekk foofu ca Touba di ko ñaanal moo ko njaboot gi yëpp parce que borom Tuubaa xasee it waaye soxna Ndiaye Mbaye euh, maa ngi koy siyaar di ñaanal sëñ Mourou Samb barsàq yàlla na doon noflaay ci dara gisee xaw balla soxna Ndiaye maa ngi siyaar bu baax a baax ak njaboot gi yëpp euh, ak kilifa googu ne ci kër maa ngi koy siyaar bu njaboot gi yàlla dafa leen taw fi fa sëñ Mourou féete woon sëñ Tuubaa féete woon fa see xaw dafa di mucc mucc nay xéew defal ay xéwal yaatoo yaatu ci barke borom Tuubaa euh, di siyaar nag maanaam soxna Ndey Jóob maa ngi lay siyaar bu baax sox Cheikh Jiiri Jenn maam jaara wara mbaa kuy faatamake na ñetti mbaar yëpp nday jëp siyaar naa la wax di siyaar te sax Mbàkke Jóob Cheikh Mbàkke Jóob ndeysaan dëkk Njaareen waaye liggéey fii nag ci Kër Masaar nga xëy waajur mu góor bokkoon na ñu doon awu sëñ Ablaay Ñang daa ak moom kon Cheikh Mbàkke gërë maa ngi lay siyaar a baax di ñaanal ñëpp taw fa waa soxna Muslim Mbay moom itam maa ngi ko siyaar ci barke sëñ Fallu di ko ñaan rek yàlla yokk xéewalam defal ko njaboot gi yëpp bar yokk xéewalam ca barkeel ko ca barke Fallu waaye maa ngi siyaar nag faat fan xam naa tey nag Fatou si yeex naa ko siyaare ah, maanaam ma naa ne la waaye nag siyaar naa ko rek ndax moom xale bu ndaw la waaye nag mooy woote bu if bi tàmbalee kon euh, ñu ngi siyaar ñëpp di ñaan ñëpp a tawfeex waaye waddaa euh, wakkaana xaqan nag ali naa na suma minin mooy kër sëñ Maguette Diouf nga xam ne altine ci nekk fa lañ koy daja ndeysaan di fa jàng alquran lu wat wakkaana xaqan tey siir ak jaalibat alquranul karim di ko liggéey la borom Tuubaa di ko liggéey Cheikh Abdou Khadir Mbacké yàgg nañ yan gën a yàgg kon sëñ Maguette Diouf ñu koy seer baax ak mboolem waa daara ji yëpp nag naa ndeysaan ñoom sëñ Diouf sëñ Xaas euh, Babacar Ka euh, Abdoulaye Abdou Abdou Abdou Ndiaye Maraxib maa koy siyaar bu baax Murit Ñang maa ngi koy siyaar ndeysaan sëñ Cheikh Gueye Cheikh Gueye sama waa ji Cheikh Gueye sëñ Fallou maa ngi koy siyaar di mboolem ñi nga xam ne ñu fay teewlal ci kër ga sëñ Moustapha Ngom mu Cheikh Moutala Mbacke siyaar naa ko baax di siyaar sa Sadiq mu sëñ Moutala nga xam ne ndeysaan di nit ku baax di sëñ Moutala kese tey faral daal ci kër sëñ Tuubaa gii ci Pikine moo faral di nekk loolu ko sëñ Sadio xam ñu koy siyaar baax di ñaan yàlla guddal faram defal ko wér may koy muy bëtañ ci barke borom Tuubaa di rajo Cheikh Moutala Mbacke la moom tam a baax di mu toog eh, ñëpp nag eh, mel kon xam naa ni di siyaar waa Tuubaa ko mi ko wakaam bàyyiwuñu kenn góor ak jëm ak ndaw waa daayira sib ko jawaayir bàyyiwuñu kenn di ñaanal sëñ Saliou Ndiir yàlla na yàlla yo koy leen ci barke sëñ Saliou Fall dara ji Cheikh waaye alaaji mbay kii tubaab boo ko maa ngi koy siyaar bu baax a baax e, ñoom abdou ci yaxadu mbeng e, gaa yi baax yi ma la yëpp daal ñu ngi leen siyaar kon ñu ngi ñaan ñëpp tawfeex di santat sëriñ Touba di santat sëriñ Touba di sant Cheikh Ibrahima Fall Baou Mouridine xasida yi daal ñoo ni musal ñoo ni mosal ñoo ni texeel loolu yàlla dogal ñoo ni musal laa wax dina musal dina texeel kon nan ci jàpp baax a baax kon moo nu mën a musal ci mm, àdduna bi daal di gën a gàtt ak bar sax gën a jëm ak àllaaxira gën a jëm kon nañ ko jàppaat bu baax a baax a ba fi ñu toog nii dal xasaay di ñoo fi nekkat mooy solution xanaa arabisant yi nga xam ne arabisant bu nag wax yi ma wax kii ci arrangé wu leen ndax soo nee xasiiram féeti yëpp dañuy daal defe nag affaire yombal waaye borom a ko bind waaw waccal ma daa ihiloo wa salwaat fawqal ibadaati maxan wa daxawaat sëñ Tuubaa bi ni yàlla defal ma daa ihi sama tag yi ma tagg rasulullaahi wa salawaat ak julli yi ma julli ci rasulullaahi mooy xasiire salawaat yi fooxal ma daa yi fooxal euh, ibadaati maxan mu féete kaw jaamu yàlla yëpp jaamu yàlla yi mu teg ci maxan mboole seen lépp lu doon jaamu yàlla lu doon jaamu yàlla ci wax ak jëf lu mën a doon lépp xasaayit moo ci féete kaw kon lii moom sëñ Tuubaa ko bu ne maa ko wax jeex leen waaye nag moom lu may askay képp nag wala bu fekkee moo wax askay demal ñaanlu ji bu boo déggitee xasiida yi mu neex la soo diggee ñu waxtaan ci mu neex la kon ñu ngi santaat ñëpp di balaax ñëpp nag yaa na ko seetaanat ay ay déwéni déwén déwén léegi daal bari na waaye yàlla na ko yàlla wàññi ci baaxam moom waaye ku ko déggatul nag rek daal di ba dem nga kon xanaa li ma ci xam dem mu yàgg koo dégg rek wax dëgg yàlla nag waaye ku déggatul di faatu na yow faatu nga kon yow kon nag yàlla na yàlla musul ci pexe yi ak noone lislaam yi sëñ tubaab noonu bañ a tubaab doy na ak jaamu yàlla walaay waxoon nag waaye jamono ko dóor a indi sëñ tubaab ne bañ tubaab doy na ak jaamu bañ ko ngir yàlla tax muy wax bañ tubaab bay na ak jaamu yàlla jamono koy door a indi ñu ngi jéggulu ñëpp bala àq ñëpp nag kon santeeg CFA ak lonk wi yaa dajee borom tubaab asbuna allahu wa nimal wakiil sëñ daam jërëjëf ñu doon jéglu ñëpp jërë ngeen jëf ak ñu doon seetaan wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu الله من أولاي ولا دهد لو قلان أدايا